ah euh, waaw salaamaaleykum sénégalais yi ne fii ak yi nekk bitim réew di wax euh, jaa ngeen jëf yéen ñi fi mën a teew ndax tey bés bu jafe la pour dem ak dikk bi ndax euh, suñu mbokk chauffeurs yi ñu ngi grève di sàkku yoon ak état bi déglu leen te bañ leen a tànxam nu ndax la ñuy grève aussi lu am solo la te jafe-jafe la bu nekk fii ci biir dëkk bi di wax que ne Aliou wax na ko ci nasaraan li wundu woote bi leen dong la dañu xëy tey ci booru midi ñu am information bu ñu wax ne noo Amadou jàlloo yoon bàyyi na ko mu dem bàyyi ndëganiku ba pare def ko lu ñuy woowee contrôle judiciaire mooy maanaam di ko wax ab par diir bu nekk ci weer bu dee da nga ñëw di wuy si ñu ne waaw naka la ñu mun a bàyyee Thierno Amadou jàlloo te kilifa Thierno Amadou jàlloo yan garantie la am yu tax ñu mun koo ba te mu ga kilifa amut yooyee garanti ñu gën ñu téye ko foofu ci biir kaso ba ca rëbës mu nekkaat beneen ni mbir moo xamante ne day gën a fësal di gën a dëggal que yoonu Sénégal waxuma la jeng waaye lu ko neex la nekk di def moo tax boo xoolee depuis ay at maanaam bi Macky Sall ñëw ci pouvoir bi ba tey lépp loo xamante ne yoon mu ngi koy def jëm ci féete ci ña nga xamante ne ànduñoo Macky Sall mooy yat la boo xam ne day dóor di fëgg di mbëkk di fayantoo di xoqatal di tiital ak néewal doole bu dee nag ñu farak Macky Sall la ñoom dara du leen ci fekk mun nañ cee cité dossier yu dul jeex ba bi ci mujj muy mbirum député yi nga xamante ne ni ka ca bokk ñu accuser kook ñoom déglu nañ ko ça fait maintenant ñetti weer moom ñoom kilifa lañ dégloo ndoo ma nga fee ca rëbës ñu teye waaye député député yi ñoom ña ngay yaataa yumbe nekk ca la leen neex looloo tax wax ji du gudd c'est très simple dañuy woote manifestation fépp fii ci Sénégal à partir de vendredi 10 waaye fii ci dakaar dañuy doxee buntu université jëm buntu assemblée nationale ñi koy woowee place Soweto ndax nag yoon a ngi jeng te lu ëpp dafay tuuru mbir maa ngi bëgg ëpp loxo doonatul ay mbirum nañ ci waxtaan nañ xool nañ ci xool nuñ cee yaatalee non nañu na non parce que Macky Sall déggut wax parce que Macky dégluwul leneen lu dul rapport de force te ci loolu la ñuy woo comme nag nee na moom. di gisul morceau bu xonk comme nag moom nee na dégluwul ñu ko artu wala ñu ko wax du ci àddu lim xam danañ ko ca fekk parce que loolu ñoo ko gën a xam ci mbedd mi la ñuy woo nañ dem ñu defante ko ci mbedd mi incha allahu rabbi vendredi te bu ñu kenn wax ne am na ku déposé ci même itinéraire bu ñu ko kenn wax il est déjà 16 heures passé il est déjà presque 17 heures suñu lettre pare nañ ko te dinañ ko jébbal suba incha allah préfecture buntu université la ñuy tàmbalee dox jëm place de l'indépendance parce que justice su Sénégal li mu nekk di def du yoon ah, bunt ah, assemblée nationale parce que justice Sénégal li mu nekk di def du yoon mi ngi jeng mi ngi par parparloo mi ngi def la ko neex kumba am ndey kumba amul ndey loolu la ñu wax ne dafa dàkk képp koo xam ne nag sénégalais nga esprit de justice maanaam yoon kese taxalaa jóg dañu bëgg mu leer du rek kilifa moo tax ñu teg ko du rek kilifa du rek ñeneen ñi nekk ci kaso yii ci Sénégal te am lépp loo xamante ne ni yàlla yoon may na leen ko pour ñu jox leen liberté provisoire du rek député yi nga xam ne boobu léegi ñi ngi tendeefal seen dossier bañ cee yox du leer waaye lépp loo xamante ne ni la injustice la te justice bu Sénégal mu ngi koy teg ci ndodd askanu Sénégal bi moo tax ñuy woo sénégalais yépp pour ngeen ñëw ñu àndandoo saafara ko xeex ko benn yoon parce que Macky Sall xamul waxtaan Macky Sall li mu xam mooy rapport de force la ñaara am nag waxtaan ba am jàmm mala xeex ba am jàmm waxtaan nañ amuñu jàmm dañoo fas yéene xeex pour am jàmm incha allah ajjuma bii di ñëw le 10 ci lañ koy tàmbali doxee université jëm bunt assemblée nationale pour que Sénégal ñu bàyyi suñu justice bi ñu jàpp en notage ñu bàyyi suñu justice bi ñu téye di ko xookatal ak di ko fooye loolu lañ ci bëggoon a sànni ci kàddu ma jox suñu frère Guy Marius Sagna mu ñëw sànni ci ay kàddoom